alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin wa salillahuma ala xayri xalqillahi wal mursalin sayidana muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kasira mbokk yi ñu bokkal yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu amat mbégte bu baax teewat ak yéen fii ci seen émission xubbu nabi ak seen soppe seen xarit Mouhamed Dabakh Cissokho comme ni leen ko baaxoo di wax euh, tabarakallahu sunu sunu yitte mooy mooy tagg sayyidina muhammad alayhi salaam waaye di ko waxtaane comme ni ko cheikh bi waxee himmi bi mataxi muhammadin xayran bihi loolu mooy sunu yitte ndax yiw nekkul ci lu dul tagg sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam nooñu la ñu nuyoo mbooleem kilifay diine mbooleem kilifay aada wax naa leen ba tey seen émission xubbu nabi émission la bi nga xam ni dañuy dalal mbooleem kër yonent Yàlla Muhammad yi mbooleem kër diine yëpp daañu leen dalal ñu toog fii ci plateau bi waaye ñu waxtaanal ñu sayyidina Muhammad alayhi salaam waaye ci mbind mag mi nga xam ni jokko lañ foofa bu tey ñu ngi Tiwaawan bu subaa ñoo ngi Tuubaa ëllëg ña nga ba gannaaw ëllëg ña nga Laayeen noonu lañ koy defee ba dajal mboolem këru diine yi nekk ci réew mi ak li ko wër incha allahu taala tey nag ñu dalal ah, comme ni ma ko baaxoo di wax eh, nuyoo bi may nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada dama ci jiital sama sëriñ sama soppe sama wasila Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil mu yaa faama moom alxaaji Soosa Ndiaye ñu nuyu ko ziar ko ñaanal ko yàlla na yàlla defal ko jàmm buñ ko nuyoo nuyu nañu mbooleem kuy kilifay diine waaye mbooleem ki kilifay aada ñaan yàlla defal leen tawfiix ak jàmm ju yaatu insha allahu taala tey mbokk yi waa KNTV waa KNTV dañoo dalal kër maam Cheikh Alxaaji bu ñu nee kër maam Cheikh dalal nañu kenn ci njaboot googu waaye bu ñu nee kër maam Cheikh Alxaaji dañ ci cité tànn ci koo xam ni tey moom lañ dugg këram muy këram am alxaaji Soose Njaay wax na ñu nuyu xalifaam ba sunu baay alxaaji Njaga Njaay waaye nuyu sunu yaay Faama Soose Njaay ñu ngi kaa nuyu waaye nuyu mbooleem njaboot alxaaji Soose sunu baay Amaat Soose Njaay ñu ngi koy nuyu bu baax sunu baay sunu soppee sunu xarit ñu nuyu ko ziar ko waaye tey daal dugg nañ këramam Cheikh Alxaaji Malick ci biir loolu ñu dugg këramam Alxaaji Soose Njaay waaye dalal ci kenn koo xam ni ci njaboot gi la bokk ci taalibe yi la bokk ci ku ñu ràññee la mooy Oustaz Moussa Ndoye ku ko xam xam ko ak Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil di suñu président général tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara xam naa ni tey moom lañu dalal ci seen émission xubbu nabi ngir ñu mën mu mën ñoo waxtaanal jàmbaari Seydina Muhammad alayhi salaam naka lañ koy bëggee buñ ko bëggee ba noppi naka lay mel incha allahu taala après am na lu ñu lu ñu indil loo xam ni bonus la loo xam ni euh, mbégte la ñu mën cee noos Oustaz Moussa ñu lay nuyu di la ziyaar bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp ñuy siiwul ci waxtu bi di wax ñu ngi leen di nuyoo nuyoo lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Oustaz Cissokho ñu ngi lay nuyu am mbégte bu baax a baax ci dalal gi ñu dalal. Mhm. ak waa bërëb bi yëpp ñu ngi leen di nuyu. Mhm. ak ñi ñu ci fekk ñépp mhm. di jiital suñu nuyoo comme ni nga ko ubbee ñu ngi nuyu xalif général yëpp yu nekk ci Sénégal. rawatina suñu xalif général Seydi Mouhamadul Mansour. di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam mm-hmm. yokk wér gi ak man man man bi ak kàttan bi mm-hmm. noonu la nuyee ki nga xamante ni ci ndigalam lañ fi ñëwee mm-hmm. mu nekk suñu bunt ci kër Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu muy Serigne Ibrahima bu maam Soose Njaay bu faama Soose Njaay moom ñoo koy nuyu di ko sant di ko gërëm Mm-hmm. di ko ñaanal it yàlla mm-hmm. lim bëgg ci diina ji mm-hmm. ak ci tarixa bi yàlla mottalil ko ko incha allah amiin noonu lañuy ñuy wàccee di nuyu ca daara ja gën jóge ustaas yi fa nekk ñëpp ñoo ngi leen di nuyu ak daayira yi ak ñiy euh, wër sëriñ bi di encadrement bi buñ ci nuyoo Seydina Assane Ndiaye. Mm-hmm. mi nga xamante ni démb la ñoo ngi doon jokkoo ci mbir mi. Mm-hmm. moom it ñoo koy nuyu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ci gàttal daal Oustaz Sissoko ñoo ngi am mbégte. ak kontaante. ci dalal gi ñu dalal ngir ñu waxtaanee naka la ñu war a mun a bëggee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bañ demee ba ci biir incha allahu. dinañ indi lenn ci euh, bind Serigne Ibrahima Ndiaye. ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee ba ci biir daañu indi mbindu Cheikh Ibrahim moom itamit mu indil ñu lam ñu indil ci bëgg Seydina Muhammad alayhi salaam ak relation bi nga xamante ni am na ko moom muy ko jàmbaare lool Oustaz comme ni nga ko waxee ci sa jeexantalu wax sunu waxtaanu teg xubbu nabi alayhi salaatu wa salaam mooy naka lañu ñu bëggee yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam oustaz ñoo ngi am mbégte ci question boobu ndax yenent bi sallallahu alayhi salaatu wa salaam ba fi yàlla nekkee te dara amagul moom yàlla ci nun kase nekk fi ba mu bëggee amal àdduna dafa jël ci leeram bind ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk soppeem mm-hmm. nekk xaritam mm-hmm. ndax li yàlla bind mm-hmm. sayduna muhammad a ci gën alayhi salaatu wasalaam yàlla amul ku dul sayduna muhammad déedéet déedéet déedéet am na bindulit dara ngir boppam ci wama xalaqa rahmaanu wama xalaqa rahmaanu say an li nafsihi siwa saydal mahmudi wa huwa alxabibu wa huwa alxabibu kon yàlla amul ku dul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. te nee na bu ngeen ma bëggee joxoñ sayduna muhammad ni topp leen moom yàlla moom yàlla mhm. su ngeen ma bëggee la mhm. topp leen sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bu ngeen bëggee muhammad bëgg ngeen ma bëgg ngeen ma aatihu llaha wa kooku nag moom lañu war a mën a bëgg waruñoo bëggaat keneen ku dul moom. moom dong moom kese. Mhm. moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mhm. ndax boo ko ndax sa dund. Mhm. yàlla royloo kenn ku dul ñu roy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ndax boo ko roylu sa àdduna du sotti. boo ko toppul sa àdduna du sotti mm-hmm. boo amul maxabba ci moom mm-hmm. sa àdduna du sotti mm-hmm. du sotti dara du jag dara du jag mi ngi noonu dañu nit ki boo bëggee saf xorom baa booy wax nit ñi déglu la soppal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mag ñi ñu am ci senegal ñu baax ñëpp jëloon seen lépp teg ko ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mm-hmm. Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu mm-hmm. jàngal ñu naka dañu war a mun a bëggee yeneen yàlla Muhammad sallallahu ah, alayhi wa sallam Maodo jàngal nañu ko jàngal nañu ko aywa kon ñu ngi lay déglu ndaxte mi ngi koy wax ci xilaas mm-hmm. ni wa waajibun taatun hadi mahabbatuhu kaza tibaau di yaati min al umam mu ni wa waajibun dina war ci ñun taatun ñu topp njol màkk sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax aatihullaha wa aatihu rasul mhm. kon waajib boobu du waajibul fadli du waajibul sunnati mhm. waaye waajibul fardi la waajibul fardi la dafa wor ci ñun doomu aadama yi ndax suñu ñëw ci àdduna yàlla mi ngi ko jaarale ci sayyiduna na sallallahu alayhi wa sallam moo tax Maodo ni wa waajibul dina wor ci ñun taatul ñu topp kan la ñuy topp alhaadi Mm-hmm. ki nga xamante ni boo ko toppee la dina la jubal ci yoon mm-hmm. mahabbatuhu ñu bëgg ko mm-hmm. ndax bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkul dañuy woy leen nga fi tasu ni fa la yem bëgg yenent yàlla muhammad da nga koy bëgg bëgglu di ko bëgg bëgglu ba ba àgganat fa nga jëm ba sopp ko piir doo ko bëggantu doo ko bëggantu doo ko cof waaw du yem ci bi lisaani la bëgg naa Seydunaa Muhammad ci làmmiñ wax ko noonu la. waa régie waa waa régie du gën ma tegal Seydil Hadji Malick ci écran bi ñu gis ko. te cër yi du ko jëfe mm-hmm. kon bëgg gi dafay des. Mm-hmm. mu ni wa mahabatu kaza tiba ullazi yahti min al umam bi lépp li nga xamante ni yeneen bi indi na ko. Mm-hmm. loolu dañ ko war a topp dañ ko war a sàmm. kon Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. war na ci bépp doomu aadama mu bëgg. mag ñi lu tax seen mbir sax mm-hmm. ba fii ñu nekk te bañ génnee àdduna yàgg na mm-hmm. leen ko may mooy dañoo def te wasul tawassul mm-hmm. bañ bëggee seen borom dañ ko jaarale ci a Muhammad sallallahu alayhi ndax munoo àgg ci yàlla te jaaroo ci yeneen bi mënul nekk mënul nekk ndax yàlla moom kese la am yàlla moom kese la am te fa xubbuhu bëgg njool màkk sa aadatu texe la Mm-hmm. fii ci àdduna mm-hmm. ak àllaaxira mm-hmm. boo ko bëggee da ngay taxe am na fu ko suñu góor ga waxe ni maam alaaji Abdou Dabaax ni bëgg yenent bi day ñi nga xamante ne ay defkatu bàkkaar lañu sopp gi ñuy sopp yenent bi loolu mucc la ci ñoom mm-hmm. mm-hmm. bu taaxa mm-hmm. lil musnibiina najaatun wa amaanun wa amaanun doo ci yem mais da nga am sécurité min hawli yowmi liqaayi lal azim min hawli yowmi liqaayi te do euh, bis bi nga xamante ni mooy yowmal xiyam soppi gi nga soppoon yenente bi ci àdduna doo ci am benn tiitaange ak ragal moom bëgg yenente yàlla muhammad sallallahu alayhi salaatu wasalaam kon oustaz bëgg yonent bi mun nañ cee indi lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree mm-hmm. ci ñun mënuñoo dund sans yonent bi mm-hmm. mënuñoo dund sans ñu bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam ci ay jaar-jaaram ndax pour nga bëgg nit ki faa nga xam ay taarixam boo jàngee ay taarixam Mm-hmm. ak ci jikkoom yi nga xamante ni moom la jikkoo woon mm-hmm. ak melokaan yi nga xamante ni moom la yenent bi amoon mm-hmm. ak naka la daan jëflante ak saxaaba yi ak ñi ko wër ñëpp kon di nga xam ne kii mooy waaja mooy waaja kii mooy waaja boo ko bëggee la yëpp boo ko munta nga am liñ ci jël nga taxe fii ci àdduna yowmal xiyaamit di nga taxe kon daal sunu sarata ñun mooy waajabul taatul haadi mahabbatuhu ndax kasa tibaaw lazi yaati min al umam moom la ñu indil mu war a sauver xeet mi te ku bëgg bokk ci sauveur boobu faw nga bëgg topp Seydina Muhammad alayhi salaam macha allah oustaz ah, ñu ngi lay déglu te euh, yàlla waxoon ne in kuntum tuhibbuna allah waaye fattabihuni mhm. waaw in kuntum mhm. su ngeen nekkee mhm. tuhibbuna allah di bëgg yàlla man Seydina Muhammad fattabihuni topp leen te yàlla du ci yem ak yéen yaxfir lakum mhm. zunubakum mhm. day jéggal seeni i bàkkaar da leen di jéggal seeni seeni seen i seen i seen i seen i bàkkaar kon bëgg sayduna muhammad sallallahu mhm. euh, euh, dañ ko dañ ko war a def ndax lu war la ci ñun niñ koy bëggee nag góor gi wax ne boo ko bëggee am na ay màndarga yoo xamante ni mooy feeñ ci yow moo war a nekk ci yow war a nekk ci yow ñu xam ne yow bëgg nga yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax laa laha alaamatun mhm. qaalu inna axzamuha mhm. istihmaali sunnati lmuxtaari taxtani taxtanimi mu ni bëgg yenent bi am na ay màndarga yoo xam ne yow boo ko soppee dafa war a nekk ci yow xaalu ñu wax ni inna axzamuha ya ca gën a màgg gën ca kawe mooy istihmaali sunnati yi Mm-hmm. ngay jëfandikoo sunna mm-hmm. munoo wax bëgg naa yenente bi te fu yenente bi teg tànkam ba teg ko yow doo ko teg waxi kese waxi kese naxul lekk tubay voilà mm-hmm. Seydil Hadji Malick waxoon bi mun na maa guddule tànk mun na ma gën yaatule tànk waaye man Maodo fu yenente bi teg tànkam ba tegi fa ma teg fa sama tànk Hadji Malick waaw ba kër ak dara maan jëfe na sunna yenente bi te roxuy sunna yenente bi benn yoon ba njabootam ko ba ci yow mi eh, ba ci jamono ji ñu nekk kon mm-hmm. li yenent bi indi mm-hmm. yàlla sant ko ko mm-hmm. da ko war a mën a jëfe a yem ci ay wax di jëfe yi sunnaam moo tax daal mu ne kon ya gën a rëy ah a arzamoha yi gën a rëy ci ci ci bëgg yonental Muhammad mooy istirmal sunnatihi topp daal sunna sam si waaw topp ko rek bañ ko wàcc min jumlatil umami topp toog da nga koy toppale bañ ko wàcc mm-hmm. waaye bëgg naa yenente bi mm-hmm. doo jëfandikoo ay sunnam mm-hmm. bëgg naa yenente bi bëgguloo alxuraan wala doo ko jàng doo ko nafar bëgg naa yenente bi te bëggoo mag ñi baax ñi fi nekk kon sa bëgg yenente bi war nañ ko mën a xoolaat xam ne yow mi ni nga soppee yenente bi des na des na des euh, bu ñuy na nettali ci sa saaba yi niñ taxawoon yenent bi nekk ci ay jàmbaar ba mu jaral leen ñuy tëj seeni kër génne seeni jaasi ngir xeexal diine lislaam mm-hmm. ba boo koy nettali histoire ci ci jamono ji nga jékki-jékki dégg benn waaye la ne man de loolu bu ma fa fekkoon bu ma fa bu ma fekkoon jamono jooju mm-hmm. dana def nàngam dinaa def nàngam mm-hmm. te moom am na doom yoo xamante ni dugal ko mu jàng alxuraan kon bu ko fekkoon lu def dara bëgg yonent bi da nga war a roy ci sunnaam mm-hmm. waaw mm-hmm. góor gi waxaat ni njariñ nekkul ci bëgg yonent bi mm-hmm. te àndul ak amal àndul ak jëf nga koy wax ni la te doo ko jëf walay sa naf on xubbin bila amalin wa taabixal suttatin muxtaari taxtani taxtani mu ne walay sa naf njariñ nekkul ala xubbin ci bëgg yenent bi bilaa amaleen bu àndul ak benn jëf hmm? mu ni loolu kay boo ko waxee yow sa bëgg yenent bi des na laa ilaha illallah war a ànd ak jëf hmm. bëgg naa yenent bi dafa war ànd ak hmm. naa yenent bi warul yem ci làmmiñ kese waaw bëgg naa yenent bi euh, yenent bi di ko sopp di ko sopp di ko sopp ba buñ gisee ustaas yi soxalat xoolee ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam kon mm-hmm. góor gi ni njariñ nekkul ci bëgg yenent bi te du ànd ak jëf mm-hmm. ba pare ngay topp sunnay ki nga xamante ni moom la yàlla tànn mm-hmm. ci xeet bi kon it bokk na ci tey yi góor gi waxat ni tahzimuhu wa inda tuskuruhu xubbal xuraani wa asxaabil karami kon booy boo boo nee bëgg naa yenent bi fu ñu koy tuddee di ko màggal war nga wane sa cofeel ci bëgg yenent bi ak bëggit alxuraanul karim ndax dañ naan kaana xulxuxu xuraan moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon boo bëggee yenente bi yii Seydil Hadji lay wax mm-hmm. ni nii lañu ñu waree toppee yenente bi nii la war a bëggee yenente bi mm-hmm. kon yii yëpp yow doomu aadama bi ñun dañ cee war a jaar ndax mooy suñu texee ci àdduna mooy suñu texee ci àllaaxira mm-hmm. te bokk na ci balance bi ñuy nattee ni ustaas si soxo bëgg na Seydunaa Muhammad bëgg alxuraan da ciy bokk ciy bokk soo mënul mokkal kaamil gi yëpp ngay muraaja mhm. di góor mhm. boo amee njaboot nga dem dugal ko ca daara ja muy jàng mhm. kon boo sa si soxo waxee ne man de sopp naa Seydina Muhammad dinañ ko wax yow yow dëgg la de yow de sopp nga yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu coow ñëpp ci euh, réew mi dañoo jëloon seen lépp jëndee ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba li ñu am lépp yàlla may leen kon daal bëgg yonent bi mag ñi jàngal nañu ko mhm. ni yoon bii kat ñu ci jaaree oustaz mhm. dinañ bëgg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa yoon bii buñ ci jaaree dinañ bëgg sayyidina muhammad alayhi salaam loolu la ñu cheikh oustaz Moussa Ndoye indil mhm. mooy yoon wi nga xam ni sa maam cheikh alhaaji malik radiallahu anhu tabarakallahu andil nañu ko muy fukki yëf fukki jikko fukki jikko yi nga xam ni bu nekkee ci yow te moom la moom la bunt bi mu waxtaane léegi Uh, waajibul taatul haadi mahabatuhu uh, kaza tibau lesi yaati min al umami lahal alaamaatu ba xasida ba ba bunt ba daanu ci jikko yooya àndal nañ ci yenn nit yoo xam ni moo ci gën a fës uh, ah, mooy topp sunnaam mooy bëgg ko ah mbëggeel gu amul dayo mbëggeel gu amul yemukaay waaye roy ko ndax mooy royu teef bu mag bi ah, tabarakallahu waaye bëgg alquran tabarakallahu Euh, ndax mooy mooy mooy yoon wi gën a gaaw ci ci bëgg Seydina Muhammad oustaz indil nañu ko ci ay détails yoo xam ni yu yaatu la yoo xam ni kenn ku ci nekk bu ko déggee yow mi nekk sa biir kër sa biir saal sa biir nekk sa bërëb liggéeyukaay ah, tabarakallahu di nga xam ni kat nii mandarga yii la mën a am pour bëgg ah Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam bu ko defee dañuy dem rapidement ndax temps bi du ñu xaar dañuy dem rapidement ci li nga xam ne nag moom la ñu indil ci li nga xam ne moom la borom fayaaja ban wax euh, fayaaja ban olohu man maal ghazal in kaana jaam ila aqli ah bilaw aw salaatin aw madxin euh, aw baytin min al muxtar bi sëriñ boobu nga xam ni tabarakallahu tey moom nga toogee toogaayam moom nga ñëwee ci ndigalam moom nga moom nga ci ndigalal Cheikh Hassan Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax de passage euh, ñoom Cheikh san Gueye gaa yu baax yooya nga xam ne ñoo encadré euh, kër gi tabarkalla encadré sëriñ bi di ànd ak moom ci waxtu wi ne euh, ñu nekk seen ak njaboot nekk seen rek topp ci seen ginnaaw lan nga ñu mën a indil ci li nga xam ni andil nañu ko ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. jërëjëf ñu ngi nuyu sunu yaay xujja noxo di yaayu kër gi ñu ngi koy nuyu bu baax baax a baax ñu ngi koy ziyaara bu baax sunu yaay jooju. jërëjëf Oustaz Cissokho mm-hmm. di amaataat mbégte bu baax baax baax ndaxte yàlla daf ñoo booleel koo xam ni. Mm-hmm. mun nañu léegi dafa dépassé ñun diggante sëriñ ak taalibe. Mm-hmm. dañ koy xoolee bëti waajur. dañuy bokk ci doomam. yi nga xamante ni da a jur. Mm-hmm. mu nekk mu xaddam ci tarixa si Ahmad Tidiane. Chérifil Fatimil Xasani radiyallahu anhu. Mm-hmm. Serigne Morsoor joxoon ko lijaasa. Mm-hmm. ak yeneen lijaasa yoo xamante ni joteef na ko joteef na ko ci yeneen i sëriñ. waaye est-ce que doo bàyyi rek ma aakimoo ko yéen kii ma jël ngeen ngeen yéen ngeen loolu. Ah, waaw bàyyi leen rek ma jël ko ma jël sëriñ bi yéen ñu xool ñu xool fu ngeen mën a laxasu fu ngeen mën a yàq waaw fu ngeen mën mais daal ci gàttal uh-huh. ñun waajur lañ ko lañ ko def mm-hmm. ndax lépp di lépp lu waajur di sekk ak doom mm-hmm. mi ngi koy sekkal ñun mm-hmm. ñun njaboot ndax boo dee toog doo waxee sa bopp kase danga naan ñun njaboot gi lépp lu waajur di sekk ak ñun mi ngi koy sekk ak mi ngi koy sekk ñun. te boo gisee euh, boo gisee euh, lien alaaka bi dox ci diggante moom ak way juróom bu jigéen. Mm. nga xam ni euh, bu ko daan gis mu ñëw ci ay daje. Mm. day ñëw ni rupp ci suuf. taataan taataan mm. ay ñaanam. tabarakallah ba nii tey. foo ko fekk ci ay yitte. mi ngi mi ngi waxtaane naka la ñu bëggee waajur. Mm-hmm. bañ na ko ba waxam yu ci ba yu ci gën a bari. Mm-hmm. mooy mooy mooy euh, du ma àndal ku fonkul ku waajur. Mm-hmm. te ko ànd ak moom ñaari ñaari yoon ñetti yoon. yow boo bëggoon sa waajur benn. da nga koy doubler ndax euh, li la yàlla booleek moom. te mu sopp loolu waajur. mu nekk lu raar ci sëriñ. ndax nit ki dina la woo ngir jariñoo la. waaye moom daf ñëw ngir ñu nekk ay model mhm. boo ëllëg ñu mën a jëriñ mhm. boo fonkul say ñaari waajur mhm. moom bokkoo ci euh, bokkoo ci njabootam moo tax ku ci am dara di góorgóorlu let ci waxam yooyu da koy bàyyi xel di séddoo waajur yi avant nga koy sédd te moom it sax du nangu nga sédd ko moom kay moo lay sédd kon foofu la jaar ak ñun yor daara ju mag yor daayira yor ay dawaayir mm-hmm. yoo xamante ne bu ci nekk bokkul ak fa moroom moom nekk mm-hmm. loolu yëpp liggéey buy soro door laay wax ba jolof ba jolof ba tàmba mm-hmm. yëpp ay daayiraam ba gàmbi ba gàmbi ay daayiraam a ngi fi te bëgguñu um, rek mu yem foofu noonu day law day day day law insha te luy soro tàmbali la kon moom dañ koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram der lañ koy ñaanal lépp loo xamante ni war na ñëw ci moom te lu safaanu la mhm. yàlla fankal ko mhm. moom lañuy ñuy ñaanal Cheikh Ibrahima mhm. moom nag te ñu indi ci benn euh, xasidam ci surtout raw dugu ah moom dinay bind kon day bind waaw day bind ay taalif day bind ay ay ay xasida day bind ndaxte bind saas nekkul ñëpp ko mun nit buy bind ci yenent bi di wax ci yenent bi lan mhm. kooku am na leer ah moom la Sëriñ ba wax ni karaamatun xattu yaddi mhm. Mhm. sama sama sama karaama mooy sama sama samay mbind tabaarakallaahu nekkul ñëpp a mën a wax ci yenente bi nit buy wax ci yenente bi lan kooku am na lu mu làmbool ci ay leer foo xamante ni kenn mënu ko ma koy naan waaw ma koy naan kon yi bokk na ci ay bindam ay bindam bëri na mais yii tey moom lañ indi jukki ko buñ ñëwee waxtaanee ko ci jour. ni mu nampee ci yeneen bi alayhi nampee ci bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ziyaare ji Màkka. Mm-hmm. jaar Madina. Mm-hmm. fa ñu denc Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. fa la ko waxee lii. lii nii waaw. ca guddi aljuma. la vingt cinq février. deux mille vingt Mm-hmm. ci la bind xasida bi ci a munawara mm-hmm. mu def ko nag tawasul jokk mm-hmm. tawasul def ko tawasul bi jawharatul kamal moo tax xasida bii ñuy bëgg a wax dafa am secret bi waaw ndax boo ko dee calcul douze douze douze abyaat la hmm? muy tolloog li mu jawharul kamal kon xasida bii ku jàkk boo ci ñaanee say soxla mu faju mu faju mm-hmm. moom yokkoon na ci beneen mu nekk treize mm-hmm. ba mu tëddee ba guddi lañ ko lañ ko ko ilham ilham wan ko ko ni ko biñ ci yokk teggil teggil bokk ca bokk ci mm-hmm. waaw ca yaa yaa xiyaasi fii umuri tawassuli bi rahmaani loolu la ci yokkoon ñu ni ko bii teggil nga bàyyi ko douze yi mu toll lému jawharatul kamal mm-hmm. kon xasida bii képp ku am soxla mm-hmm. boo ko ci tawasulee jaare ko ci Seydunaa Muhammad yàlla faj sa soxla xanaa mu kii rek ndax ñu ngi may signaler temps bi waa mi ngi noonu mm-hmm. kon oustaz mu ni zurtu rawduhu bi sururin zurtu xam nga ziyaar dafa am ay ay ay façon ziyaar yu am dinaa jékki-jékki la dem ziar ji oustaz Cissokho mhm. wala ma jékki-jékki la ñu ni oustaz soxo dafa am xew mhm. ma dem ziare ji ko mhm. ca xew ma ca xew ma am ziar boo xamante dañ koy tuddee ziaratul istimdaad mooy bi ngay dem ziar sa sëriñ pour mu tëbbaat nga beesaat nekkat leer ci nga ci ngay amee ziyaada voilà ziyaara bi nag da koo def tawassul ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi mhm. mhm. mooy moom yonent mhm. raw damba bi sururin maa ngi ànd ak mbégte allahu ki ñëpp ñëpp di wër di wër te yàlla amul ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga dem ba jàkkaaroog moom te waxoon na fii ma tëdd li ko wër yëpp mi ngi bokk ci toolu ar eh, toolu jardin wu aljana mhm, ndax wal nga dem ba jàkkaaroog moom nag mhm. mu ni ziyaare naa rawdu Seydunaa Muhammad waaye ba ma koy ziyaare mhm. bi suruurin maa ngi ànd ak mbégte mu ni fii nekk na fa sa diihin ku ñu dëggal ki bu sooy koy wax ca fal sidduqu fal sidduqu wal siddiqi wal siddiqu lam yarima lam yarima mhm. ki ñu dëggal ki mooy Aboubacar mhm. fa lañ ko denc ak ko ko dëggal ah, ak ko ko dëggal mooy Seydunaa Muhammad mhm. moo tax mu ne fii siddiqin nekk na fa ki ñu dëggal ki mooy Aboubacar wal xasiini ak ki ñuy ñoŋal mooy yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ba moom xamul luy bàkkaar xamul nuñ koy def yàlla ko ñoŋal ci lépp moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi salaatu wasalaam moo fa nekk ak Aboubacar mm-hmm. sëriñ bi ni zurtu ziyaare naa mm-hmm. rawduhu mm-hmm. rawdam ba rawduhu toolu jardin ba ndax rawdu day firi toolu jardin bi anwaarin ànd ak ay leer du ko wër yëpp nekk ay leer foofu mu ne fii nekk na fa hmm. faa ruuxin omar ibnul xatab hmm. moom mi daan tàkkale dëgg ak neen hmm. dañ koy dàkkale omar faaruux omarul faaruuxi wal amini ak ka wóolu ka ñu tànn ka mooy yenent yàlla mais mais ma tuuti ma yeggale ndax foofu néegu aysa la la nekkoon fi ñu denc yenent bi mhm. bañ ko fa dencee Aysa daan na fanaan ci néeg bi mhm. mook yenent bi mhm. xanaa tey bu nekkoon suñu soxna yi tey duñu ñeme loolu di fanaan ak ku faatu bañ fa dencee Omar euh, Abu Bakar Sadiq mi nekk bàyyu Aysa Aysa daan na fa fanaan waaye ba Omar ibnul Xataab faatoo ñu suul ko fa ci la Aysa bàyyi fanaan ci néeg laaj ko mu ne kii sama papa la. Mm-hmm. teggin. teggin. Mm-hmm. kii sama jëkkër la. Mm-hmm. mun naa fanaan ak moom. waaye kii nekkul sama papa nekkul sama jëkkër. kon bàyyil ma boobu la gëj a fanaan ci néeg. ngir teggin. ak respect. ak ormal. waaw may ma tuuti mu yeggali. kon loolu mooy surtout raw duhu bi anwaarin fiihi faaruxin wal amin mm-hmm. mu ne yaa kaana rajaay mm-hmm. fi amaanin mm-hmm. ataytuka maal usaani sëriñ ibrahima nag yaa kaana woo ki nga xamante ni moo nekk rajaay yi sama yaakaar fi amaanin ci kóolte ki nga xamante ni moom laa yaakaar bu yeneen ci yàlla muhammad ni ataytuka dikk naa maal usaani ànd ak njàkkare ñëw mm-hmm. naa ci yow di ànd ak yaakaar mm-hmm. yow mi nga xamante ni yow la ñu wóolu mm-hmm. kon dikkee naa ci yow nag ànd ak njàkkare mu ne rii a raw duhu rii a miskin nafa an bil ma ani sëriñ ibrahima ni rii a raw duhu xetu rii a raw duhu xetu raw damba mhm. rëy am miskin mhm. dafa mel ni xetu parfum bu misk mhm. ci misaal da jëlee misk nekk parfum bu neex mu indi parfum bu misk ni moo fay moo fay moo fay moo fay moo fay ball waaw mu ni nafa anii jëriñ na ma bil ma ci ay ci ay ci ay ci ay njëriñ waaw kon xoolal biñ niveau di Serigne Ibrahima di waxee. Mhm, mhm. ci yonent yàlla mu xam. niveau bu kawe sallallahu bu kawe. niveau bu kawe. Mhm. rii a rawduhu rii a miskin waaye nafa ani jëriñ ñama bil ma ànd ci ay ci ay maanaam yu gën a xam mu dakk tabarakallahu euh, euh, rawduhu riixul miski miskin ah miskin tabarakallahu nafaani bil maani signalé nañ ma bu yàgg ni ma temps bi jeex na waaye ëppoon naa bañ a dagg soxna Khadija maa ngi lay jéggalu bu baax ci temps bi ma jëlaat waaye mbir dana fu muy toll foo xam ni doo ko doo ko mën a dagg wala wala waaye yoon du yem ci benn insha allahu taala daañu fi tawaat yeneen jotaay waxtaani sëriñ bi ci xasida yi nga xam ni Eh, bañu ma ko waaye nag moom lam nampeccu yonent bi masal nañu ca mm-hmm. xasatu ilayhi bi saami muhammadan yasqi bi qawdihi mm-hmm. waaw tabarakallahu mm-hmm. eh, kon nga gis ni eh, dikk na ci yonent al muhammad alayhi salaam nampeef na fa ay mbir waaye ba mu ca mandee def ñu cee mosal ba ñun ñëpp ñu mën cee mandee ñu mën cee mosee sax laay wax yal na yàlla barkeel ko oustaz ñu bàyyi la kàddu tàggoo bu dul tàggoo xasida bi daanoogul waaye. daanoogul waaye ñu ñu ñu. ndax tëgg ko foofu rek incha allah waaw ñu tëgg ko foofu rek daanoogul wax dëgg yàlla xasida bu neex te doy waar na ndax mu xamadun am na ñoom ni jékki-jékki li mu xamadun nuurul kamaali. sayduna nuurul amin. xaadani himmati sawxi. ila ahla muntahani. waaye bi ma gën a bayit bi ma gën a neex ci xasida bi mooy. Mhm. kam layaalin lam anuumin. Hm? afkiru. Mhm. aynu rabbaani. Mhm. kam bëri na. la yaalim ci ay guddi yoo xam ne mm-hmm. Cheikh Ibrahima ne lam àndumu min mm-hmm. nekkuma di nelaw mm-hmm. guddi gi ndax ku bëgg a àgg guddi da koy foog mu ni af kiru li may ñàkk nelaw yëpp ba mënumaa nelaw af kiru maa ngi xalaat aynu rabbaani jëmm ji nga xamante ni boroomam moo ko yaral boppam allah ndax Seydina Muhammad yàlla moo ko yaral boppam ndax fekke wul yaay fekke wul bàyyi Hmm? Mhm. bu jaaree fii du yàgg maamam faatu mhm. mu wét mhm. te daan naa wax adaba ni rabbi fa ahsana kon oustaz foofu la ñuy daanoo daanalee egg ko yéggale ko après xam naa bu ma xadija di di kii rek ñu ñu kii ñu àtte ma kam la yaalin lam anomin afkiru Cheikh Ibrahima nee na may xalaat aynu rabbaani jëmm ji nga xamante ne yàlla moo ko yaral mu bokk muy mhm. Seydina Muhammad kuy yaru Seydina Muhammad a gën a yaru mhm, mhm. kuy am teggin yenente yàlla Muhammad moo la gën a am teggin nan ko yaa xiblati wa marwaati wa zamzami xadd kafaani yaa xiblati yow yaay sama xibla ah mm-hmm. wa marwaati mm-hmm. yaay sama marwa mm-hmm. fa ñu doxal màkka safa wa ak ak marwa mu ne yaay sa yaay sama marwa yow naa mu alayhi salaam bëgg gi ma la bëgg cofeel gi ma am ci yow ni ko yaa xiblati wa marwaati boobu boo xool alaaji ab doo koy wax ci yaa nga xool mag ñi ni ñuy bokkee ay ko yaa xiblati wa marwaati ni yi wa zamzami yow yaay sama ndoxu zamzam moom Cheikh Ibrahima. Mhm. mu ni xadd kafaani mhm. dëgg dëgg doy nga ma. dëgg dëgg doy nga ma. naan ko yaa safaa yi. Mhm. yaay sama safaa. anta yow Seydunaa Muhammad. kahbat yi. yaay sama kahba. yaa tawaaf yi. wër gi ñuy wër kaaba gi. bëgg gi ma la bëgg. loolu. def naa ko muy sama tawaaf def naa ko muy sama tawaaf. fii hm. ci bépp mbir. lu mu ci mën a doon lu mu ci mën a doon mm-hmm. kon loolu dimension la boo xamante ni nitu yàlla dina toll foofu di waxee foofu dañuy yëgante dañuy yëgante mm-hmm. ba dañuy ndoroo des fois ay bind mm-hmm. li ma la waxoon sànq ci ubbee gi la ni xasida ci yenent bi bind ko loolu leer a koy def kon Oustaz Cissokho xam naa temps bi jeex na mais loolu faa moo waxoon nag kam la yaali lam anoo min af ay nu rabbaani wallaay ndeysaan bayit bi daf may daaneel wallaay huwa bayti wa zamzami wa xatimi wa maqami wa marwati wa safaay ah xarami mashari misabi rukni xajri qiblati wa gaaru qiraay hmm, la la maamam Cheikh Hadj Abdou Aziz Dabakh wax tabarakallahu ñu ngi jéggulu waat temps bi nga xam ni uh, sofat nañ ko ca waaye mbir am na fu muy toll doo ko mën a dagg ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax a baax seen émission la woon di xubbu nabi ñu ñu teew ci teew ci ak euh, oustaz Moussa Ndoye xam naa ñu bàyyi la nga tàggoo tàggoo bu ñu tàggoo rek ci lu gàtt insha allahu taala. waaw bu oustaz maa ngi amaat mbégte ndax yow ci kër gi nga bokk. Mm-hmm. yaa ngi bay sa waar bu baax a baax a baax te njaboot bi ñëpp. daan mm-hmm. nañ ci yow. Mm-hmm. ngay bayee sa waar. yàgg na lool ci kër gi. ñu ngi ci yow bu baax a baax a mhm, baax mhm, mhm, di nuyuwaat suñu sëriñ sëriñ Ibrahima yi nga xamante ni moom lañ euh, ndigal euh, suñu ñëw fii ci ndigalul lañ ko amee ak Seydina Assane bu Assane Ndiaye bu encadrement bi moom ñu ngi koy nuyu di ko sant ak ustaas yi nekk ci daara ji yëpp waa daayira bi ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp xam ni lépp luñ fi wax mu jub loolu suñu borom la soog luñ fi wax mu dañoo ñu xam ni ki doon wax mii néew ñu ko sax euh, lii mm-hmm. ndax moom ci waxal kàddu geeg yooyu daayira bi ci loolu la gën a kii mm-hmm, mm-hmm. te ma lu ciy dëng la ñu xam ne ki doon wax moo gàtt alluwe su ma ak gàttee daara ja euh, oustaz ya fa nekk daal mooy cotisé waat orienté ma ci xasida yi waaye daal xasida yi sëñ bi di waxaat oustaz yi nañ koy gëstu bu baax a baax a baax ndax sëñ bi ñu ngi bind te bindul la teg fi dañ euh, da bind pour njaboot gi mokkal ko ñu jëriñoo ko nuyul soxna Daba balaa ngay daaneel soxna si maa ngi nuyu waaw soxna Safiyatu. soxna Safiyatu. nga mhm. xamante ne Oustaz Ibrahima ko jël teg ko sama loxo. Mhm. maa a baax. moom it mhm. waa kër wa salaam wa rahmatulahi wa barakaatuhu xam naa noppi moom tey daañu ko jàpp kaata ko ba mu dagg waaye ñu ngi jégloo at bu baax a baax a baax mi ngi noonu seen émission loon xubbu nabi ñu àndoon ceek euh, Oustaz Moussa Ndoye bu Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil mu yafaama Maam Alxaaji Soose Njaay mu teew nag fii ak yéen waxtaan wi dégg ngeen ko neex na bari na nay res ak jàmm lépp lu ca jub ci uh, sunu gàdduk àlluwe la waaye lépp lu ca baax ci Cheikh Ibrahim la waaye lépp lu ci dëng ak sunu gàddu àlluwe la aqulu qawli haza wastaghfirullaha li wa lakum assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu